ذكرى المصون لا هبا ولا إله إلا الله président Macky Sall wax nit ñi ñëwee ñu jël jiw yu sell teg ko ci sa loxo yu sell yi nga joxal ko ko xalif général di nguy dañ mu taxaa Mbacke Bachir yooyu mu jox ko képp kuy bokk ci kër seen Touba te nekk fii ci Touba te teew ci jataay bu sell ñuy nuyu bu baax Serigne Bass Abdou Khadre di rafetlu kàddu yi nga xam ne moom la wax léegi di kàddu ñu ngi rafetlu bis bii ndax bis bii bis bu màgg la ndax ki ñu ko jagleel moo tax. suwaay bu baax yal na yàlla yokk leeral. sëñ Bass Abdou Khadre wax na ko léegi. sëñ suwaay bu baax léegi. ko tudd tudd jàngale alxuraan ndax borom xam-xam yi gëstu gis nañ ni àdduna yëpp jàngale alxuraan la ak jàngale alxuraan te bare na ay kàngam lu fi ne wala lu fi newoon ci moom la ñu jaar pour jàng téere bu sell boobu di téere alxuraan président Macky Sall wax ni.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 président wax ni mi ngi fëttali kóllëre bi mu am ak yow am ko ak waa kër sëñ Touba yëpp ndax ne moom fii nga xam ni fala ne sénégalais ko teg ko jamono bi ñu nekk mm. ci àddina bi dafa am crise bu metti crise boobu nag bi njëkk bi ñu gën xam mooy mas bi mas ñu ngi dem ndànk ndànk ñu ngi ñaan yàlla ak seen ñaan yàlla na yàlla def mas bi jóge Sénégal jóge ci àddina bi wante crise bu metti la woon président lim ci man taxaw na ci am ci tamit ay jàngat yu ci am beneen crise ñu am te muy dal ci nit moo lay am fële ca booru réewu Ukraine loolu yi am na def ci àddina bi am na lu def ci Sénégal wante jàngat yi ñu ci war a am mooy li président Macky Sall bi wax souveraineté souveraineté rek mooy moom sa bopp souveraineté alimentaire moom sa bopp ci li ñuy dundee muy bay dundee te wax na léegi nii ñu ngi waajal nawet bi président Macky wax loolu ci kàttan suñu borom ak barke seen Touba lépp lu mu mën dina ko def pour mbayum Sénégal aw yoon ndax loolu moo ñu mën a xett ñu def ci biir ci wàllu jiwu matériel ci jumtuwaay ci engrais lu mu ci mën dina ko def ndax dañ ne juróom-ñaar fukki milliards pour bu rek te daal juróom-benn fukki milliards pour président wax ni tamit il faut ñu am ñu moom suñu bopp ñu souveraineté sanitaire maanaam ci te tudd nañu ko léegi moo tax mu commencé di dugg ci biir réew ndax lépp mënul nekk Dakar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 yàlla tàppee xol yi ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu